ci jamono googa nag am na benn buur bu mag bu ñuy wax Hérode Hérode daldi joxe ndigal ndax ñépp bindu ji ci seen dëkku cosaan noonu la Maryaama ak Usufa daldi jóg dem ci seen réew seen réew mu ngi tuddoon Betlehem ndax ñu dem bindu di ci seen dëkku cosaan bu ñu demee amuñu woon fu ñu dal ca dalukaay ya ñu daldi def noonu dem dal ci benn gëtt foofu la maryaama jure yeesu am na ay malaaka nag yu feeñu yu feeñu sàmmkat yi te nee leen am ngeen mbégte bu rëy ndax jural na leen ab musalkat ci seen réew noonu la malaaka yu bari feeñ di bégal yàlla di magal yàlla di sant yàlla di woy borom bi ak di ko tag nooñu malaaka yépp delloo asamaan sant yàlla